bay cheikh ndaw mooma deg na mu ne cheikh ibra neena buma kenn wax lolou ma waxul nawuma kenn bu mu julli bu mu wor yalla ma wo ba mu wuyu ko deggal lolou ñu ko ñemee wax wul de yalla ma wo ba mu ko mu ne ma yërëfaal lu malo baru julle koor ya ko andal bu ngeen ko defé duma len fay ne ma bankal sa baram yalla ne ma bankal sa baram ma bank mu ne ma liggéeye gën jang joxe gën julli mando gën koor